xam nga jàngale daf ci am pàcc bu rëy bu ñu wax aar jàngale bu dee ci télévision dañ lay defaral sa kanam gi ba nit ñi mën laa xool defal la studio bi ba studio bi neex a xool wutale caméra bu lay féete fépp mais bu dee ci rajo doo am loolu ginnaaw ci rajo nag doo am loolu yow yaay wut lu wuutu loolu waaw ginnaaw ci rajo doo am loolu yooyu lu wuutu loolu nga xam ne bu dee ci télé waa ji da lay gis bu dee ci rajo daf lay dégg dangay fexe ba nag déggam googu déggam googu jurul ko bëgg a gis gis nga yonent yàlla Moussa sunu borom na wa maa tilka bi yaminika yaa Moussa baat bi neex ci moom yaram wi di koy yëg mu yëg ne lii bànneex la muy tontu tëxa noppi day tontu rek tëxa noppi hiya asaaya atawakkau alayha wa awshu biha ala ganami wa liya fiha maaribu uxra tëxa noppi lu tax wax jaa neex ñun tam mu nekk suñu studio ba man Oustaz Alioune Mbaye sëñ Mbacke Sylla ñun tam danañu jàngalante mottalante noo xam ne ni nit ki ñuy déglu dana ci gis boppam dana ci yëg boppam dana ci am humeur te du ëpp am ci bànneex ba bu su semaine bii di ñëw waxuma la moom mu déglu ñu waaye day fexe keneen déglu nu bañ ko door tàmbali am na waa jox daf ñoo woo rek waaye waaye bàyyi leen seen reetaan yi waay waaw ñun buñ ko tontu woon yàq da mënoon nañ ne ko duñ ko bàyyi déedéet dañ naan ko jërëjëf rek ci laaj bi waaye moom moomee ndax wax bàyyi leen seen ree yi moo nu dàqaree léegi lu rek moo di kon humeur yeeg waxtaan yeeg ñoom seen yooyu bëgg a loolu télévision di defal nit ñi studio bu nice ah maquillage col ba noppi naal del muñ ak del del del xaw a télévision léegi ñun nag ñu nekk ci rajo bi kenn duñu gis xanaa nuy dégg rek loolu tax ñu ñu dugg ci roq boobu ba tabaarkàlla euh, mën ci am ay auditeurs yoo xam ni la basa bihim te duñ leen wax nag lu dul dëgg waaw walakin aksara naasi lil xaqi kaarihun noo ko bokk jàng ginnaaw nag dëgg lañ la waxloo te nit ñi bëgguñu dëgg waaw nooy def dëgg gi nag léegi waaw mu ne sëñ Mbàkke soo amee sa doom soo amee sa doom docteur bi na la bët bu set na naan benn nuwaakinin nga jël benn kopp bu verte bët bu set nga jox ko ko ca am na bés nga di ko jox euh, lem def ko ca kopp verte boobee nam bañee nuwaa kinin ba lay bañ a kopp verte bi mu ne ma ci lu wér ma ne ko léegi da ngay changer kopp bi bu tey na vert bu tey na bleu bu tey na chocolat bu tey na jaune loolu mooy système mu daawa bi ñuy def ci penc mi nga xam ne mën nga koy def sa xitaab diini du xewwi mukk du jeex mukk waaw loolu rek moom moo ñu ci dëggal ak sama gars yooyu ñu koy jéem a gérer ndànk-ndànk <laughs> yàlla baax na bu baax sunu télévision di ñëw. Mm-hmm. waaw 52 milliards maa ngi koy ñaan ndax ba bëccëg maa ngi ci su ma amoon xaatim gu may dagg dama koy dagg ma waaw maa ngi ci am yaakaar nag lool ndax gis naa mbooloo moo xam ne ñi ngi pare ñoom pour liggéey ci tudde ko opération milliard waaw maa ngi leen ci encouragé nag ñëwaguñ fii nag ba wax ma ko waaye ndéy li senn na ba ñëw fii bëgguma wax ki ko jiite bëgg wax ñu ko bokk waaye daal xam naa ne ñoom ña nga cee dox parce que 52 milliards yi Alioune man fi ne mënumaa fanaanoo million man mii fii ne mënumaa fanaanoo million munu mënumaa fanaanoo million sama compte fi nekk nii xam naa ne la ci nekk matul deux cent mille maa la ko wax li tax mooy du ma amul senn soxna su ma am sama soxna yi nga am soxla suma compte di xaar ki ci ne maa bëgg dem màkk waaj nga danaa fexe ba jël ci lu mat jël ci lu mat yóbbal boole la jox la boo amee lu lay metti te da ngaa bëgg dem ci docteur yaay tànn boo bëgg dem la ca la ca compte ba li feeg jeexul danaa ko ci def noonu ma koy def ci sama soxna it noonu laa koy def ci julli di nga xam ne léeg-léeg di ñëw fii ne ma dama am arrière trois mois dañ maa dagg courant dañ maa def nangam te fi ne ku ma gàntu da ngay defe ne mu dafa bañ mais am na ko loolooy problème bi Saalum Sall nga ñëw laaj ko mu gàntu la pour yow dafa bañ fekk na bañut ndax fi mu dëkk nii muumu ko amut fu mu fu mu dëkk day luwee rek bu amee arrière léegi tey mu tuxu dem feneen donc loolu maanaam cinquante deux milliards cinquante deux milliards cinquante deux milliards bu ñëwoon la ma cay lekk man boo moytul ci milliard lay toll mi dangam dana ko ëpp ndagam dana ko mat ndax am na waaw ba tey am na yu ma war a faj ci penc mi yoo xam ne bu ñëwoon bu ma ko fajee ba noppi la may dese xam naa bu mu ci milliard lay toll wala ñaari milliard donc parce que fi nekk son sëñ bi maa ngi ci fukki daara ak juróom yoo xam ne kat ñoo ci fonctionné lu tax parce que yee pareeguñu teere la buñ la may te mayuñu la ko pour nga jaay ko dañ la ko may pour nga def ko daara nga tax xeeru njëkk ba toog di xaar kocc koccal fukki daara yeeg juróom yooyu su fekkoon cinquante deux milliards yi ñëw na bu subaa ñu mottali jee tàmbali jee mottali jee tàmbali jee doo ngay tàmbalee jàng te su nag danañ ko def daar yoo xam ni kenn du jàng di fay gratuit lañ koy def incha allah moo tax fi nekk ni ñu yëngatu ci wàllu loolu ñu tuddee tey euh, management la xawma fexe ba am benn poulailler fexe ba am benn yi fexe ba ab dugg ci transport am na ñu kaar agrément am nañ ko am nañ licence ma nga ne ci sa ginnaaw ngay séen donc yooyu di ci yënguti it lu tax parce que loolu su bari ba bari danañ dem ba nga xam ne bu dong bi ñëwee lañ koy laaj peut-être juróom fukki dërëm lay doon ba téeméer dërëm yàlla nañ ci àgg ak jàmm loolu nag su fekkoon lu mel ni Soudan la wala lu mel ni euh, Afghanistan la wala yu ni mel ñoom xam nañ kuy liggéey ak nu ñuy def ba jàpp ci liggéey bi mais damay wax ne ab sëriñ ku koy ñee doo ko dimbali jigéen ku koy ñee doo ko dimbali waaw kuy ñëw ab sëriñ doo ko dimbali waaw jombul jombul incha allah. sa musuma dégg nga sama secret ci loolu. yàlla dafa def ñu ne alxuraan la ñuy tafsir bu ñu waxee baat def safaan ba bala ñu nit ñooy yedd alxuraan yedduñu te alxuraan moo nañu laa nu farriqu bayna ahadim min rusuli gis nga borom xam-xam yi. man li tax ma fonk ñëpp bëgg ñépp amul ki yëg kaanak ki nga jàpp sax ne mi ngi may wax ab baat yàlla xam na ne ni ma ma bëggee borom xam-xam nu laa ko bëggee moom ndax su su ma waxoon tey ci benn borom xam-xam fekk téeméeri nit ci moom lañuy dégloo seen diine ma wax ci moom sikk am ñett ñu ko bàyyi lan lay layale loolu wa yasuddu an sabilillah nan laay laay la loolu maa wax ci boroom xam-xam bi wax joo xam ne téeméer yi ko toppoon ñett bàyyi nañ ko loolu maa koy lay bu ëllëgee su ma fekkee boroom xam-xam téeméer topp ko ma fexe ba ñett yokk ca téeméer boobee su ëllëgee daa am lu ma cee amee léegi nag ñaari bu ma ci gënal <laughs> jeex na lu rek la moo tax fi ne duma ci tricher duma ci njuuj njaaj nafiquma ci ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp su ma ci doxee ci tëli bi ba seen kenn ba seen kenn damay taxawal sama oto su ma la rombee door laa seen marche arrière la def wala ma dif demi su ma ñëw ne la foo jëm nga ne barab sàngam su ma dem ba foofu wàcc jot su fekkee ne sama poos am na dix mil am na vingt mille am na trente mille moo xam ma mën koo yëkk ci ndànk bokk la ko ndànk nu bokk wàcc ku ne dem ngeen baal ma li wax nag wa ama bi ni'mat rabbika fa haddis moo tax ma wax ko waaye bàkk ko puukat yi taxut donc bëgg laa woon rek ne borom xam-xam yi moo xam sunu sëriñ si lañ sunu sëriñ si mu maam Sëriñ Tuubaa mii ku ko bëggut foo koy layale Cheikh El Hadj Malick mii ku ko bëggut foo koy layale <laughs> jeex na ñoom ñëpp ku ci nekk nag def ci diine ji loo xam ne boo demee ci alxuraanu karim suratul xasiri su ma jumun borom bi def ne dama am ñetti groupe bi nit allahu akbar ñu ne ko ñetti groupe nga am ñan yan mu ne lil fuqara lil al muhajir lil fuqara al muhajirin ñooñu am naa leen ñu ne waaw mu ne allasina tabawu daara wal iman ñooñu tam am naa leen ñu ne ko waaw mu ne bi mu troisième groupe bi nag liste bi jeexagut allasina jaawu min baadihim allasina jaawu min baadihim sunu borom xam nga ñu fuqara muhajirin uxruju min diyaarihim la ca teg te bëggu daarawi imaan yuhibbun man haajirihim la ca teg waaye waaye ñii nga xam ne jaawu min baadihim moom tegu ca jëf de yaquluun yaquluuna rabbana rabbana eh, ixfir lana wa li ixwaani allasina sabaquna bil iman yàlla mu ne am na groupe bu njëkk ba raw nanu groupe bu deuxième bi raw nanu mais bu troisième bi comme liste bi jeexut dugal ñu ci biir ni nga ciy dugale mooy muhaajiroon na yële duñ dégg kàddu gu ñaaw ci suñu gémmiñ lansaar yi duñ ko ci dégg kon lan lay tekki mooy li ngay def nii Hadji Moustapha Guèye jiitu la ci maxtar Seck jiitu la ci sànq ñoom jiitu la ci ah ñoom Moustapha Ndaw jiitu la ci oustaz yooyu yëpp jiitu la ci nga ñëw ci tool biñ doon bay bëgg roppi seen gopp yi tàmbalee bay nite woo doo dem liñ bayoon seet na sofal ci fiñ tàmbalee bay te dem waaye bëgg liñ bayoon nga di ko bayaat danga def at yu toll ni yiñ def te doo jeexal liñ bayoon ñoom loolu rek la yàlla nu yàlla dimbale wa sukkuraan